jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte mbokk yi comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Parcelles Assainies ñëw seet si kenn koo xamante ni euh, euh, xam ngeen kar xar kanam gi naa miin ngeen ko euh, mais xëy na ñu bari ci yi nga xamante ni ñooy suñu mbokk internet yi am na ci ñoo xamante ni ñu ngi koy doo gis muy président écrit Dóor Dóoraat ñu gën ko xam ci Cheikh Thiam tey Cheikh Thiam lañ seet si ngir waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne bilan bi ñu dégg ci écurie Dóor Dóoraat ñu def euh, ñu am set victoire ak six défaites mu nekk bilan boo xamante ni ñëpp xamee woon nañ ni Dóor Dóoraat ay champion ñu ngi fa naam ay ndaanaan a ngi fa naam mais bëri na ci ay champion yoo xamante ne ay révélation lañ ci làmb làmb ci am ci ñoom yaakaar ñu war a waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni dafay jëmale làmb kanam ak yenn détails yi nga xamante ni am na ci écurie bi euh, ñu bëgg ci waxtaan ak moom Cheikh maa ngi lay nuyu. jili maa lay fay. sant yàlla julli ci bi di gërëm samay ñaari waajur. waaw di sant sëriñ Touba bu baax a baax. di sant suñu sang sang bu tedd bi nekk ci koñ bi di maam Saalum Ngoune Fall. di sant sama sëriñ Cheikh Abi Mbacke. di sant sama waajur bu jigéen nag bu baax a baax di ñaan suñu boroom bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam ba ma yeggalee sama yéene ci ci moom. di ñaanal sama papa fee tëdd. yàlla yóbbu ko àjjanay firdawsi waaw te yow fal suuf ci kawam di la nuyu nag bu baax di la dalal jàmm Cheikh euh, ñu bëggoon waxtaan tuuti ci bilan écurie Dóor Dóoraat parce que bu ñu arriéré deux ans ci ginnaaw wala un an ci ginnaaw écurie Dóor Dóoraat jël na fi euh, li nga xamante ne mooy sunu làmb door mhm. tey mu nekk écurie boo xamante ni boo ko tuddee rek xel day dem ci Zos mhm. Zos bàyyi bëre mu amoon beneen entraîneur boo xamante ni mu ngi foowoon muy Kamzo mhm. ñu bari xamoon ko ci bëgg gi mu bëgg Dóor Dóoraat rawatina ni ngeen meloon ci écurie bi tey ñu dem ba bis gis bilan wu Dóor Dóoraat mu def sept victoire six défaites mu nekk bilan boo xamante ni ñu bari kontaan nu ñu ci lan mooy seen problème. non problème amul sax. parce que boo nee problème rek day mel ni y quelque chose. problème amul boo gisee ñuy def sept victoire six défaites c'est parce que saison bi dafa lang. saison bi dañoo dem bu ci digg bi saison bi échec. parce que dese nañ ñun six combats yoo xam ne nii ay booy yu ko waroon a bëre mujj ñu ko bëre. parce que boo seetee booy yu bëri am nañ combat mais par la suite promoteurs yi dañoo lâché dañoo bàyyi ndax feebar bee tax mais bu du woon feebar bi amaana du ma am sept victoire six défaites mais comme que loolu la ma yàlla jox rek dama koy santeer suñu borom ndax at yi ñaari at yi si ginnaaw defoon naa palmarès bu riche je crois ba je crois daaw géej maa jëloon suñu làmb door bi daaw ma nekk euh, je crois huitième position xaw ma xaw ma neuvième position daal mais di ñaan daal suñu def di ñaan suñu borom saison bii di ñëw nga xam ne dèjà amagum naa ay sept quatre combats wu cinq yu taxaw mm. saison bii di ñëw ma def saison bu gën bii passé mm. waaw saison boo xamante ni gisuñu Garga sa bëre. gisuñu Garga 2 bëre naam gisuñu Goro Sock tamit bëre mu doon saison boo xam ne saison bu gàtt la ndax saison bi cinq mois la. mu doon saison boo xam ne mosul am saison bu gàttee nii ci làmb tey écurie Dóor Dóoraat lan mooy seen problème ba fait boo waxee Dóor Dóoraat rek ñu ne non saison bi ni mu demee combat ni mu demee nomb de combat am na ci mbër yoo xamante ni sax bëri nañ ci ñaari yoon ku mel ni Thié. bëri na ñaari yoon ñaari sorteem yëpp def ci perte euh, am na ñenn ñoo xamante ne naam daanu daan nañ mais am na ñoo xam ne dañoo yaakaaroon ni dinañ am ndam mais seen défaite dafa dafa dafa am ci équipe bi waa ci hmm. déjà premier combat bi mbër boo koy jël da koy xam premier combat bi dafa dem jël mbër bu mu xamul hmm. maanaam dafa jël mbër ci photo du du du du ma waa du taxawaay hmm. du du doole du la waajee ko ëpp lépp bokk mu jël ko daanu yàlla dogal mu daanu mu bëgg a faj mer dem jëlaat beneen combat kut koo kut comprendre nga yàlla dogal foofu mu daanu mais soo gisee tenoor yi bëriwuñ ténor yi bëri si ren ren ji yaakaar naa si je ne me benn ténor bëriwul parce garga nekk foon garga de amul combat góor aussi noonu mais pareil pour yeneen ténor yëpp yeneen ténor yëpp amuñu combat ndax feebar bi moo yàq lu bari feebar bi moo yàq lu bari bu paasee feebar bi mooy comme li ma wax sànq rek combat yi ñu jot am mënuñu ko mënuñu ko bëre. Mm. déwén lañ koy bëre fi mu toll nii moo tax di ñaan yàlla rek feebar bi jóge fi nga xam ne déwén dañuy déwén moom xam naa dinañ am saison bu saturé. Mm. incha allah rabi. moo tax seen sànni tàccu ngeen indi Angleterre diggante ma màjj màjj yéen ñëpp ngeen daw ñëw ëmb ko ndax bañ <laughs> dóor dóor yi gën a diis ci yéen. non demewul noonu. anglais dafa nekk mbër boo xam ne nii. Euh, dafa gëjoon a bëre. Mhm. je crois sama juumun def na trois ans toog bëreewul léegi yàlla dogal mu am combat moom maaji maaji mais da ngay def comme tout le monde rek ni ngay ëmbee Garga Mbossé noonu ngay ëmbee Angleterre noonu ngay ëmbee Thiès noonu ngay ëmbee ñëpp parce que équipe bi loolu lañ baaxoo. Mhm. ku am combat ñëppay ñëw. te Angleterre il fallait ko mu demee noonu ndax non seulement toog na trois ans bëriwul mais foog nga jege ko pour repérer yeeg. xam nga affaire yi manqué yëpp nga def ko ci moom. yàlla dogal ñu dem mu dóor maaju maaju mu daanu mais comme ni ñuy ëmbee ñëpp rek lañ ko ëmbee. waaw mais dégg naa am na ay détails yoo xamante ne Cheikh am na ci écurie ba pare. écurie dóor dóoraat niñ doone niñ suudee woon doon benn nekkatuñu benn parce que Garga jóge na fa. Gora Sock jóge na fa am na yeneen mbër yoo xamante ni ñu ngi tàggoo ñoom it ci jóge fa la jëm. yaa ma gën a xam. non Garga Garga moom day dem sur parole. pas écrite bindagul lettre de démission bindagul dara. Gora Sock aussi woo na ma téléphone moom je crois ñëw na fi sax après. toog ñu wax mu ne moom santiratul boppam ci écrit bii dafa bëgg dem. mais ñoom ñëpp sur parole la kenn joxaguma ci lettre de démission. kon ba tey damay jàpp ne ñu ngi fi. non munoo jàpp ni ñu ngi ci parce que ñoom wax nañ ko ci seen i kàddu. xëy na kayit bi ñëwagul. seex lan moo tax ñoom ñu jógee ci écrit bi. di dem peut dañ gisagul dañ gisatul seen bopp ci écrit bi parce que jàppale woo leen. non si man mbër bu am combat mbër yi dañuy wax ni jàppale woo leen da ngeen a jël gargam mboo sa favoriser leen teg ko ci seen kaw xam naa ne loolu tax xale yi di dem. <laughs> voilà Cheikh ni ma la dama lay ñaar man su ma bëggee làmb. Zos moo tax ak garga. Hmm. bien vrai que dama jógee ñaar tali indaale sama Moustapha Gueye fii ci parcelle. Hmm. ñëw fekk fi Zos ak garga. Hmm. ma ne kuy wàllu yaan sa dëkk dafa tëggul. comprendre nga. mais yàlla xam na ne mbër bu ci am bu combat muy mag muy xale muy ndaw li may jàppalee xale yi sax du ko jàppalee mag ñi yàlla xam na loolu. Garga 2 kooku sama fils la man Garga sama sama sama sama. nekkul sa fils sama bu nekkoon sa fils du fi bàyyi équipe bi nga yor nga xam ne yéen a ko tette ba mu doon li mu doon mu jógee fi dem beneen équipe. du fekk Garga ba mu nekkee xale ba Garga 2 ba mu nekkee xale ba léegi mi ngi ci équipe loolu moom mosuma koo xam. non si Garga 2 la takkee ngemb. Ah, loolu du ma ci xam. mosul jaar fenn fii la takkee ngemb. Hmm. peut-être dem na ba xam naa peut-être dirigeant yi doyatuñ ko wala wa ilaa écrit bi doyatu ko mu bëgg a dem mais loolu garaawul loolu garaawul nit moom foo santir rek ngay toog boo fa sant boo demee ba sentir too fa gisoo li nga fa daan gisatoo ko am nga droit dem. mais man dirigeant yi doyuñu ko mooy da ngeen a échec. non pas échec. pourquoi ñooy dañ pourquoi nga ne dañ échec. Ah, dirigeant yi doyatuñ ko parce que. mbër boo xamante ni euh, bi bi muy takk ngemb sax ci écurie bi la ko takkee. ngeen dem ba gisatul boppam ci écurie bi. ba mu nar a jugee ci écurie bi dem ci beneen écurie. jugee na fi sax jugee ci écurie bi dem ci beneen. waaw mais indeegul leen dem mooy xewatoo leen rek. waaw non garaaw loolu yëpp baax na loo xam ne yow fi mu toll nii li ngay wax nii yëpp bëgg nga ma yëngal. non loolu am non si damaa bëgg yëngal. te xoola jiili du ma yëngatu. parce que naa xamal ñaar. Euh. Garga 2 majeure partie supporter am mm-hmm. fii lañ nekk fajaa unité 3 man ñi koy demal stade laa wax de ñu demal stade di yëngal parcelle unité 1 2 3 4 5 6 ak fajaa fa lañ nekk moom su ma doon man moom su ma man su fekkoon man maay Garga 2 du ma bouger zéro centimètre. kon dem bi àndoo ci. non man non du ma ci ànd xam nga man du ma ci ànd. man bu ma sañoon fii lay toog yaa ngi dégg. yeggale làmbam. mais Kanta man dama jékki-jékki rek moo ma téléphone na ma bon écrit bi mënuma fi am combat ci affaire yooyu dama bëgg a dem ma ne ko ah mais ma yow sa magum bopp nga fi mu toll nii ah fi mu toll nii magum boppam la mooy xool lu ko arrangé mu def ko. mënatul am combat mooy yéen a ko daan démarché combat am. non pourtant leen mun wut. combat mu dem ci feneen fu yaakaar yaakaaree ni mën nañ ko wutal combat. pourtant daawuñu ko démarché combat am. amateur yee ko bëggoon di laaj combat am. mbër man boog à part booy ndaw yi mooy sama booy ndaw yi nii laay dem di utal ay combat mais amul benn ténor boo xam ne nii man maa lay utal combat man booy ndaw yi nga xam ne bëgg nañ bëre te amuñu ku leen jàppale laay dem ci promoteur yi ne leen defal ma lii defal ma lii defal ma lii ret ñaata booy laa génne yoo xam ne mosuñu bëre gis naa booy boo xamante ni da bu ngeen ko jàppalee ci làmb hmm. lépp lu ngeen pertoon ci làmb mën ngeen ko ñang baala waaw yow xam ma sama yow yow xam nga li ma daj si ñang baalo pour mu bëree ump la. ñang mm-hmm. baalo dama xar sama tànk tubay daj lu ne pour mu bëree. mu beneen combat nga téye non maa ko téye waaw. lu tax nga parce que dafa man gor laa dafa am benn manager boo xam ne dama wax ak moom waxi gor. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ku nekk may woo pour tëgg ñang baalo mais sama kàddu dafa am fu ma raw ba pare moo tax ma téye ko te dina bëre léegi incha allah boo jógee si ñang baalo ma génne talfa. Talfa dem fexe utal ko combat mu bëre ñëpp di ma laajaat Talfa. ma teg ko ne génne Abdou Khadir. te déwén incha allah noonu laay génnewaatee yeneen booy. parce que mais mais Cheikh li mu bëgg ñu gën ci taxaw. mooy Garga 2 dafay dem. Hmm. Gora dafay dem. Hmm. daa mel ni. Euh, cent pour cent parcelle bi mhm. gisoo leen ci seen bopp parce que moo tax mbëri di dem ci cent pour cent parce que cent pour cent parcelle bi dégg naa mbëri doo dooraa di bopp ñu ci bi dëgg la kon c'est pas la ñuy dem vrai ou faux bu doon cent pour cent bi dëgg la cent pour cent parcelle lañ wax mhm. mbër bu am combat ñeneen ñi ñëw jàppale la mhm. ah bu fekkoon loolu dëgg la kon est-ce que jar na ñuy démissionner di dem dama lay laaj rek yow xel tey na de ah bu dee 100 pour cent bi dëgg la rek ah mbër bu am combat ñeneen ñi ñëw jàppale la kon jarul kenn di démissionner kon parcelle bi yëpp benn lay doon. boo amee sa licence fii bu la neexee nga dem fee entraîné bu la neexee ñee dem fa la bëre. amul problème mais kanta bu fekkee ne par exemple dafa am ay ay ay ay du genre bon écrit bi gisatuma sama bopp nangam am kon 100 pour cent bi rek des na. 100 pour cent bi 100 pour cent parcel bi pour man sama xalaat la nag man la concerné. pour man 100 cent bi des na. Garga 2 dafa yëkkati kàddu jox la. Mm-hmm. Euh, Gora Sock yëkkati kàddu jox la bu ñu bindee kayit. Mm-hmm. indi ci équipe bi pare ngeen pour bàyyi leen. door ci kase ba mu xool benn place. buñ bindee seen lettre de démission ñëw. Mm-hmm. maa ci dóor cachet ba mu waaye man du ma téye kenn parce que dama lay wax benn affaire. jili amul benn mbër bu ci bëre. yëkkati dara def ko ci écrit bi amul benn mbër bu ci am cachet yëkkati dara jox dirigeant yi yaa ngi dégg. Hmm. amul benn mbër boo xam ne nii mës na bëre ba pare yëkkati dara def ci écurie bi. mais Cheikh kon écurie dóor dóoraat lan la ñuy dundee tey bu ngeen yoree ay xale ñu blessé wara faju ana ana ana ana keesu écurie bi. ok ah yaa ngi soog a ñëw ñun ñooy def suñuy moyen bopp. ñu ngeen koy defee. waaw mais jël si lu ma am génne. per góor a jël lu mu am génne kaare ñu taqale booy bu ji feebar ñu am luñ la lu luñ la faje am am na ci mbër boo xam ne ni tamit moom dina yëkkati dara daf ko ci écrit bi garga mhm. garga des fois dina am loo xam ne da koy yëkkati daf ko ci écrit bi léegi xaalis boobu garga di joxe anam mhm. non mi ngi fi est-ce que mbër du jot mbër bu am combat. Mhm. ngeen ci ci ci avance am équipe bi am lu mu ci dagg ko ci keesu équipe soo gisee daaw ñu def loolu. mooy ñun boo seetee booy ñu lu ñuy bëre. xam nga ne avance mbër mu ndaw jariñul dara. Mhm. avance mbër mu ndaw jariñul dara. dangay préféré bàyyi ko avance am dolli ko sax pour mu préparer est-ce que comprends nga. Mhm. moo tax doo bëgg yéene dagg man boog néegu ma boog laal xaalisu mbër yi ndaw yi quoi. loolu moom ma bugguma ko quoi te du ko def waaw mais ténor boo xam ne nii yaa ngi bëre par exemple million jëm kaw soo bëree ba pare war nga yëkkati dara dugal ko ci keesu écrit bi waaw. ana Zos parce que buñ ne écrit dóor dóoraat ne Zos ana Zos. non Zos mu ngi fi. est mu ngi ñëw ci écrit bi di dooleel xale yi. non franchement parler Zos instant yii nii business am ak lim nekk ma am mayu ko jot pour mu ñëw ci écrit bi. mais j'espère j'espère que ne déwén. d'après li ma li ma li ma jotee wax ak moom j'espère que déwén dina ñëw. kon Zoss bàyyi na bëre bàyyi na écurie bi mu mu nax saay. waaw pour pour pour euh, pour l'instant nii pour le moment. Hmm. Zoss dafa nekk ay business yoo xam ne nii mënu ko booleek làmb ji. mais peut-être yaakaar naa ne déwén dina am temps bu ndaw boo xam ne nii après dina mën a concentré wu ci équipe bi quoi. Mm-hmm. Euh, Garga 2 dem Gora Sock dem beneen xale dugg si waat ci équipe bi muy euh, ki nga xamante ni mooy Boy Faye mm-hmm. ban ban ban lu ngeen koy wax. waaw Boy Faye di ko dalal jàmm rek Boy Faye mbër la boo xam ne nii champion la ku ne bëgg nga ko si sa écrit mu dem nag waa écrit ba Serras jox ko lettre de démission tamponeel ko. mu ñëw indil ma lettre boo xam ne dama ko war a recevoir ma tamponel ko mu boole yëpp yóbbu CNG moom CNG dafa legal moom ne moom mi ngi door dóoraat suñu licence actuellement nii lay bëree bu soobee yàlla hmm. waaw. ngeen jëm ci journée bu mag seen diggante ak Sa Thiès. est-ce taxaw na ah, ah yaay président bi lu ma ci xam. ah non j'espère que ne taxawul ah parce que promoteur bi dafa wax nii rek dem bàyyi. waaw parce que promoteur bi ñu ñu ci bari euh, wax na loolu mais nee na ku ci nekk dina làmb avance jox la moo xam mu néew parce que xam naa ne feebar bi moo tax lu bari tënku mais komba ba mu taxaw nag mbër soo ko bëggee mhm. na dama lay tëggal combat yaag diw pendant un mois mhm. joxoo ko avance da ngay mbër mi beneen promoteur ñëw tëgg ko man loolu laa gëm mhm. mais doona combat taxaw na nii rek mais instant nii beneen promoteur bu ñëwee dañuy jël de. waaw hmm. ah, waaw. beneen promoteur bu ñëwoon bëgg beneen affiche bu dul Garga Mbossé Sa Thiès da ngeen jël ko. non Garga bàyyiwu fi kenn bëre Garga bëre moo ko fi bàyyi kii nga ko bëgg a jox kii lay bëreel arrangé nañu dëkkul parcelle dañuy bëre moom bàyyiwu fi kenn hmm. ah, waaw waaw. Cheikh dafa am loo xamante ne en tant que président. Mhm. dama fay gis ñu bari te duma leen fa gis. Mhm. muy parcelle ni ñu booloowee. Mhm. doon benn. ñuy gis euh, open press bu am. ñu gis fay yenn mbëri mais duñ leen fa gis yéen en tant que président écrit Dóor euh, open press euh, ki nga xamante ne mooy Modou Lo gisuma leen ci. open press Modou menn bi muy bëreeg Balla Gaye 2 ak bi muy bëreeg Eumeu Sène. non loolu fekk fi garga donc mais bu garga ñu yow yow nag ban paas ban place. damay dem open press yi mais c'est-à-dire mënoo dem nag foo xam ne nii peut-être bon dangay dem rek yow toog fenn xool seetaan man open press yëpp dama même open press Papa Sow bi yàqu ah bu la neexee boo amee numéro Papa nga woo dañ doon préparer booy fii yëpp pour mobiliser wu dem ci open press bi dafa ay t-shirt ay banderole. Hmm. loolu jotoon naa ci déggoo ak Papa. fii open press bu am man su ma ko yëgee damay dem mais lu ma ko yëgul nag des nag. des fois nag sama temps du may may dem ci yenn yi. Mm-hmm. parce que xam nga damay job te tamit yaa ma gën a xam. waaw des fois sama temps du ma permettre may mën a dem ci yenn yi mais open press bu am fekk ma am temps libre damay dem. Papa Sow bi ñu ko dàqee écurie Fass mm-hmm. mu ber écurie boppam tuddee ko jàmbaar Wrestling Academy mm-hmm. jour bi ñuy def euh, lancement wu écurie bi ñëpp dajaloo nañ mais gisuma la gisuma say mbëru écurie non si samay mbëru écurie am nañu demoon kan ak man Papa Sow moo yónni benn gain moo ma indi lettre bi ba fii ma liir lettre bi jox ko Babacar carré. no jour boobu dafa je crois dama doon dem Touba. ma ne ko fexeel dem. boo xoolee boo ko fekkoon yaa ngi ci saal ba. da gis Babacar. gis naa ko waaw kon demoon na xam nga. Mhm. moom àndoon na ak gaa yi dem. Mhm. kon na man dama demoon Touba. Mhm. moo tax moon dem. sa relation yéen ak mbëru parcelle yi lan la. ikiri dóor wax ñu ne non dóor dóoraat ak yeneen ikiri dafa relation bi lan la. non je crois relation bi amul benn problème. man mbëru parcelles yi mais yow ñan ngay wax mbëru parcelles yi. Modou Lo Papa Sow Yékini Junior. non Yékini Junior man xaw ma ko miinu miinu ma ko bokk. Hmm. Yékini Junior noonu miinu ma ko aw ma ay contactam man daal papa ngi déggante papa dañuy hmm. Junior miinu ma ko aw ma ay contactam Modou aussi noonu. Hmm. xam nga tamit koo miinul xamoo ko xamula bon xam nga ko nii rek ci. ci média bi nii xam nga ne mbër la mais xamoo xam relation bi tax ñuy wax tamit boo fa demee loo fay wax. ah boo fa demee doo fa wax dara. Mm-hmm. je préfère ma toog sam benn coin job li ma war a job. Euh, tey fi mu toll nii euh, li ma gënoon bëgg seex ñu ñëw ci. Mm-hmm. muy Gora Sock dem na. Garga 2 dem na. Gora Sock am na rakkam boo xamante ni mu ngi ci écurie Dóor Dóoraat. jarbaatam jarbaatam. mu ngi ci écurie Dóor Dóoraat nekk fay bëre am na ñeneen ñoo xamante ni euh, mën naa ne daanaka boo tuddee écurie Dóor Dóoraat xam ne Gora Sock moo tax ñu ñëw hmm. est-ce que Gora buy dem du yóbbaale ñooñu. non je ne pense pas. aada booy bawal dégg for naa ci weewu béy ñu ne dina bind lettre moom it. ah mais na ñëw aada <laughs> je ne pense pas mu dem boobu aada yaakaaruma mu dem. waaw hmm. ah. parce que xam naa ne daal dafa dafa gëm boppam aada. que du danga koy bàpp. non kenn du ma kenn kenn laa dul su bëggee dem tamit mu bind lettre rek bu ñëwee ñu caché ko mu dem ah. teewoo leen kenn non yàlla tere téye kenn pour lan téye kenn pour lan yow leer na la leeral yàlla na le mbër yi amaluñ la njariñ hmm. amaluñ ma njariñ mbër yaa koy amal njariñ rek mbër yaa koy amal njariñ mais mbër amul benn njariñ nattu mooñ ci dal rek nattu yàlla ñu bëgg làmb mais mbër na ma yàlla baal mais mbër dafa dafa xaw a doy waar quoi du ñëpp nag mm-hmm. loo gis am na exception du ñëpp mais def ci bëri ñoo xam ne nii maanaam amuñu ngor daal mm-hmm. bëri na ci torop mais pas ñëpp nag pour mu leer mm-hmm. waaw li waral wax jooju non maanaam c'est-à-dire li waral wax jooju mooy comme li ma la wax rek yow jili yow yaa ma gën a xam li may wax yow yàgg nga sol ci ay mbër. man kay fi tollee wasaare gii laay sonne sonn ba benn benn combat la muy sama diggante wasaare. waaw kon yàlla na ko daal sa combat boobu noonu. yàlla na ko daal. mais ce qui est sûr certain. mooy jili doy na waar daal mu ngi noonu daal billaahi mbër moom ah. yaay sonn si moom rek lu ci ëpp. yaay sonn si ñoom. mbër dangay waaru yàlla nag natt nañu ñun ñu bëgg làmb. dañ ciy dem ba jeex barke Serigne Touba dañ ciy dem ba jeex. lu ne man lu ne dégg naa ko ci làmb lu ne barke yàlla lu ne dégg naa ko ci làmb mais man maa bëgg làmb. dafa bokk ci sama destin quoi. dafa am loo xamante ni dama koy seetlu ci yow même bu sa mbëru écrit bëriwul. damay ñëw stade fekk la fa nga toog. waaw mooy li ma la wax. Mhm. man maa bëgg làmb même bu sama mbër écrit mbër écrit bëriwul dimanche wala samedi damay sangu ba set sol lu rafet dem stade toog. Mhm. seetaan man maa damaa bëgg làmb quoi man man sama passion la làmb dama ko bëgg. Mhm. mbokk yi dégg ngeen ko làmb da koo bëgg euh, kooku mooy président écurie de Dorade muy Cheikh Thiam tey moom lañ seet si woon ngir waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni dafay yokk làmb ci lépp loo xamante ni dafay defar làmb mais yaakaar naa ni euh, dëgg du romb ay nopp parce que lépp dégg ngeen ko Cheikh ma lay jëfal bu baax ci sa disponibilité tey moom xam naa ne sonal naa la perte sa temps bi yaa ngi nii rek mais nag euh, ma lay remercier toi aussi. Hmm. ma lay remercier waaw di la wax nga góorgóorlu. Hmm. te li ngay def yow bëgg nga ko waaw bu yàlla defee jàmm cat bàyyi la fi dañ la dégg fu sori incha allahu rabbi waaw di la remercier mm-hmm. di jégalu di nuyu sa caméraman bi mm-hmm. waaw di jégalu aussi si dérangement bi mm-hmm. waaw mu ngi noonu daal di ñaan yàlla daal saison bii ñëw yàlla def si jàmm booy yi bëre ténor yi bëre ñëpp am jàmm parcelle bon même man su ma même jëlul paie Rock Énergie jël ko. Mhm. wala écrit Papa Sow. Mhm. wala écrit Mam Lees. Mhm. xam nga écrit nekk parcelle daal. wala écrit Moussa Dioum. waaw ndam li daal déwén bëgg naa bu mu génn parcelle quoi incha allah rabbi waaw. ban message ngay wax Sa Thiès sa dernier mot. Sa Thiès. mu ngi lay laa ko war a wax. Sa Thiès. non du ma kar. Salif du ma kar euh, dèjà moom xamuma xamuma sax. xam naa la kay parce que lay gis ci écran bi. waaw mu may gis nii ci écran bi mais Sa Thiès daal lu ma koy wax mooy. nañ ñaan yàlla combat bi taxaw rek nañ ñaan yàlla combat bi taxaw yuuxu dina jub fuñ ko foogeewul. <laughs> dama bëggoon lancer benn message quoi. parce que mënu ma def émission ba mu jeex te tudd ma ci booy Ablaye. Mm-hmm. Boy Ablaye dafa nekk ci koñ bi yàlla te ko nattu mu feebar ñuy lancer appel képp kuñ ci mën a dimbalee rek. nga ñëw taxawuñu quoi parce que booy bi soxla na ndimbal. léegi may joxe numéro mu nekk 77 847 34 61. 77. 992 13 51. ñuy ñaan bon volonté yeeg ñëpp képp ku ci mën a jàpp rek nga ñëw jàpp ci parce que Ablaye soxla soxla na ndimbal quoi message boobu ma bëgg nga jàllaleel ma ko quoi. doon na lu garaaw loo xamante ni suñu mbokk dëkkandoo la barki démb bi ma ko defee statut ñu bari envoyé nañ ma message di ko ñaanal yàlla suñu borom fëgg boppam ba mu dellu si waat ay activité am seex loolu moom message la boo xamante ne en tant que président am na solo trop. ñuy ñaan rek képp koo xamante ni bonne volonté nga xale bi feebar na tëdd na te feebar na feebar bu bu metti boo xamante ni soxla na ci ndimbal ñuy ñaan képp kuy autorité rek moo xam nga dëkk parcelle foo mun ti nekk ci àdduna rek ñu lay tàllal loxo di la ñaan nga jàppale xale boobu Ablaye ñu ngi ko gisee metti na trop dafa metti yàlla ko teg natt mu metti trop trop trop ku si nekk da koy seet rek bu nekkoon yow quoi mm-hmm. waaw ñu nag koñ bi parcelle bàyyiwuñ kenn ñëpp ñu ngi def le maximum pour mu faju mais xam nga ndimbal du doy mm-hmm. te somme bi laaj dafa bari 3 mm-hmm. millions 500 moo koy faj 3 millions 500 moo koy faj mm-hmm. amaana ñun ay ndaw lañ mënaguñ ko génne brusquement rek jox ko bu buñ ko yoroon dañ koy génnee jox ko mu dem faju ji mais yàlla def na amaguñ doole boobu moo tax ñuy lancer appel ku ci mën a jàpp rek nga nga nga woote numéro yooyu mu dugal numéro seen waa kër la numéro magam la